bismillahi rahmani rahim ah déglu leen sëriñ Ibrahima sëriñ Ibrahima nee na nga ndeysaan ah baal ma chérif tereel la waaye kër Seydi Hadji Malick laay fanaan ku ma njëkk a jël nag dangay bàyyi ñoom bañ noppi nga door a jël lii mu def waxu nitu yàlla la moom it mu yàlla boole ko ci nitu yàlla yi ndax xam nga lu tax lii lii kaddu est-ce que est-ce que moo gën a jafe ci àddina parce que bii moom duma ko jox kenn xam nga lu tax ngeen may ma rek xam nga lu tax soo mu bàyyi bii te su ma duggee ci oto bi jox ko lii ci des waaw ver waaw. jàpp naa bis fii ci Wakaam. waaw. ngeen ci Habib si ak Cherif Ibrahima. te dañu lekk dara lu du yàpp gileem. nga ni. Habib si ak Cherif Ibrahima. dañuy ah. jàpp bis bu leen neex fii ci Wakaam nu defal leen ngeen te du ñu lekk lu du yàpp gileem. waaw jeex na kon ngan gi yàpp gëléem rek la. away ngan googu leen daraja la waaye fa basarukal yow ma xadit rek fii ñu toog li am tey mu ngi koy gis dëgg gis nga lii mu def yéen ñëpp du déggoon ngeen grand théâtre conférence su soxna Asiyatu Si bu Cheikh Al Hadji Mansour soxna Asi moo ma woo xaaja jàll mbay mële mu ngi toog soxna Asi ne ma dama bëgg grand théâtre nga waxtaan ci sama maam Serigne kër si ma dem grand théâtre ñu tegal ma fa ma waxtaan ca la ma cay waxtaan ci kër si Sy ndeko waajuram di suñu waajur Cheikh Mouhamadul Mansour yónnee lu na ñu indi kaset bi ne nañ ko nañ ko teg mu seetaan ko ñu teg ko mu seetaan ko ba mu jeex ne ah sama doom ji Chérif Ibrahima lii mu wax ci Serigne Babacar si man maa koy dekoore danaa ko may mbubb danaa ko may xaalis waaw léegi nag yàlla dogal ci diggante bi li ko soob waaw kon bu sëriñ Habib ñëwee def lii loola mooy lii waaw ah filme grand théâtre maa njëkk a yëkki ba fekk mu jox ma téere bii ma doon firi bi shérif mii di ñëw fekkentewun fa marabu seetaan la seetaan imam Moussa Gueye ak wayya te sëriñ bi ku ne xam na na mel ci way mu ni shérif bii dey li mu wax ci sama maam danaa ko dekoore jox ko mbubb dëju sëriñ Mansoor bi ngay dikk yaa ngi ma fekk ci bunt bi yaa ngi ànd ak oustaz sàll mii ma wax la ko teg sa loxo ci sëñ Habib sëñ Habib ni maay mottali sama yéene papa te danaa la jox mbubb mu rafet moo tax tey lii bi ñu koy def nii léegi man maa ngi xaw miir ndax fekke kon nag si la nga waxoon ca dëj ba moom nga mottali tey jii faf couleur bii mooy couleuru sëñ Mansour ak couleur jaune poussin kon nag jox na la baayam lu dëkk xam fi mboole ma ak alaaji Malick Ndoye ak Maas Gueye sa waajur bu baax bi bu mu gënee àddina ma woo ko moom Youssouf Diop ma ne ko nouvelle bu ma degg nii lan la ma ni ma waaw am na wante koor bi ñëwagul ma ni ko ah kon nekkul fi nekkuwoon fii ma ne ma déedéet mi ngi France trois heures du matin fekk na ma aéroport ba koor bi ñëw kon bis bi boo amee fii ci wakaam sama xarit sama doomu ndey sama lépp alaaji nabi gay li toog yow ak Cherif Ibrahima ngeen def fii tey lii ci bisu Youssouf jog Youssouf Diop lu mu nekk seen Youssouf Diop sunu Youssouf Diop la sunu Youssouf Diop wakaam ñu ngi leen ndokkeel bu baax li leen ñaanal yàlla fi ngeen teg seen tànk yàlla leen ci yàlla xiir parce que li shérif bi wax dëgg la fi nga commencé rafet na fi nga mujj moo raw parce que kenn ku nekk lu mu ñaan tamit ba ñëpp tiit te loolu mooy dëgg maa indakum yanfadu wala indallahi baax yàlla na yàlla taaf ci sa barke waajur bu baax ñun waa kër rasulillahi salallahu alayhi wa sallam yéen waa kër alxaaj Malick si sunu diggante ak yéen buñ ko bëgg a nettali fii fii ba at bi jeex du jeex maa ngi lay jéggulu day wax ak sang bi géey ñu ngi jéggulu ñëpp di balu àq ñépp waaye di jiital ci jéggulu bi ak balu àq bi suñu sëriñ bi toog waruñu wax ci kanamam waaye sëñ Habib lenn rekk a tax ñu jël kàddu gi moo di bi ngay waaj a tàmbali suñu woy jur bu baax wii daf ma ne balaa sëriñ Habib di commencer na nga ci yëkkati kàddu sëñ Habib ma ne ko dama ne maa ngi jéggalu bu baax ci kàddu yi fa tabaarakallaahu ndax li ma wax démb Sidi Ahmed si bu Seydi Jamil ca Géejawaay fekk ma am waxtaan bu ma doon war a dem muy soxna xalimatu Mbakke mu ngi toog mook sëriñ maam as bu Seydi Jamil magam ma bëgg a rocceeku ñu ne ma déedéet lum gàtt gàtt rek sànni ci kàddu ma ne leen yàlla dafa dogal li mu dogal ba noppi mooy ne man seen jaam laa yéen waa kër Seydi El ma ne ko kenn du wax sa sëriñ boo bëggee boo bañee duma yegg ci boo bañee ja waaye dama leen naan su ngeen bëggee loolu la yàlla def la ca des duma ko wax ma ne ko amul kenn koo xam ne sant nga si Seydi El Hadji di sa maam te jàppewuma la Seydi El Hadji ma ne ko su dul dëgg ci sama xol yàlla bu bër set ci man konu indi nga lépp moom daal niru na borom man fi ma toog xaw ma àllaaxira laa nekk xaw ma àddina laa nekk léeg nga yóbbu ma léeg nga indi ma te waxtaanu nitu yàlla lii rek lañ ci soxla sëñ Habib jërëjëf lu lu sa jur wa amoon ci yàlla yal na ko yàlla feeñal ci yow lii nga fi wax tey defar na senegaal lii nga fi sotti tey ci xam-xam defar na àddina waxuma Sénégal te te li boole nga ci lépp lu xew ci réew mi ñu ko doon jooy waxal nga ñu ko te te tey jii man bu ma ko waxoon boo moytuwul bu ma ñibbee bu ma taalee sama portable du ma doyee waaye ndokk ba nga ko waxee sant si Seydi Hadji Malick di sa maam lii rek lañ leen di doyee te nii la bu dul nii du nii loolu la sa waajur wa daan wax man de fonkoon naa la bëggoon naa la ormal naa la te ñi may àndal ñépp xam nañ ko waaye tey la raw nag bu doon benn def naa ko junni tey ndax lii lañ leen yaakaare ñépp toog xam nga ne doy na sëkk Seydi Mouhamadoul Mansour sama baay doy na sëkk sëñ kër Si mooy sama maam doy na sëkk Seydi El Hadji Malick mooy sama maam bu la neexoon nga waxtaan ca bi doyal sëkk te it la ngay wax dana mën a defar ñépp waaye si li nga ci boole nag moo toj jamono ñëpp soxla ko mooy kart gu metti gi man looloo ma neex làmb ji football bi kart yi ba ci télévision bii ci di ñu jël sax TSL bii ci la bokk bu yeboo bu ngeen demee ngeen censuré ko waaye yéen a nga ca biir c xaw ma mooy ancien TSL li may wax ñoom xam nañ doom ju judduwaat la rek waaye ñoom ñëpp mburu fof ko fëriñ ñaari télévision dong nga fi baax am na bu ko xaw a dab-dabal waaye dañ amagul programme mooy Touba TV Lamp Fall TV Mourchid TV bu dul yii yëpp bon na toskare nañ te ñoo toj réew mi ñoo ko yàq lu bon lu ne fa lañ koy jaarale jërëjëf si malik bi nga ko waxee waaye dama lay ndokkeel dafa am benn xale boo xam ne si duma tudd turam sa woy jur wa yal nañu ko yàlla fayal gis nga li xaaji Idrissa doon nettali dafa am beneen bu ko gën a garaaw sax si man xam nga boobu sama fi may waxee sama taawa nga tiwaawoon am na 21 ans ren maam ngóor mii xam na li may wax ba léegi jëlewuma ko fa mu nga tiwaawoon am na ñaar fukki at ak benn ci ren saalu sëriñ Cheikh fa lañ daan ndogoo man Sidi Makhtar Kunta Mansour Sarr bu sëñ mu Muniru ak sëñ Souleymane Seck saalu sëriñ Cheikh fa lañ daan ndogoo kin soxna kinne moo ñu daan defaral ndogo di soxna ay Mansour li may wax dama ko xam bu baax sa papa gisuma ku ko gën te li ko Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz wax rek doy na ne ku baax la ndokk bi nga ko waxee Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz wa ma yantiqu anil hawa ca la bokk du waxee bakkan mukk ndax weesu na ko kon bu nee moom la rek moom la moo tax xasida bii mu ko wax ne bu may naan ndox sax yow laay gis booba xam na ne xilaafa gi ci loxoom la ne si dafa am ñaar yu ma marqué ci sa papa mooy bi Hadji Idrissa doon wax boobu fekk na rek ci sama copte gi ma naan sëñ Mansour daal fekk dañ jóge jak saw ziyaara ji woon góor gi Cheikh Alhaji Abdoul Aziz ñëw Tiwaawan ay wi ma gis ñuy rang ci biir kër gi ma ne sëñ Souleymane sëñ Souleymane sax moo ne sëñ Souleymane Seck li may wax ci rajo la sëñ Souleymane a ngi dund Sidi Maxtaar a ngi dund Souleymane ne i sëñ Mansour tëddagul ma ne ko sëñ Mansour mosul tëdd mu ne ma nañ dem mu jox la addiya ma ne ko yow loolu rek la ci ñor waaye man am na leneen lu may teste nañ jàdd ñu jàdd ci kër gi saal baa ngi fees del ma seet benn koñ bu ma xaw a mën a naafe la ma naafe la fa ñaari ràkk def tawasul ci yonent bi ne ko daal Serigne Mansour kashfom bii ñuy wax dama bëgg lu ma ci leer tey te duma ko ko wax am lu ma wax ci sama xol bàyyi ñu yegg si toog matul cinq minute mu ne wax leen ñoom shérif ñu yegg si te man rek la ci tudd kat te annoncé wuñ ñu yegg si mu ne ah, ay dara fekk nga ma summeeku de keroog dafa summeeku mbaxana meeg yëpp teg ci kaw lal bi mu ne gis nga sama mbub maa ngi nii baal ma shérif mu jox ma loxo ne ma kashfu bi ngay werante kashful ilaahi la dégg nga ay dara man ma ne pat mu làmb poos bi génnee la ci newoon ne ma sa hàddiya maam Souleymane Seck wokk ma ne ma maa ko moom ndax maa waxoon dañ jàdd mu jox la hàddiya beneen bi ñu jógee Tiwaawoon man sëñ Souleymane sekk Sidi Makhtar Kounta yal na ko yàlla yërëm bàyyi nu Xaar sekk moo doon xalifa cene ba muy weeru koor xam nga ku dara jaam ni mu toll sa papa ñun xàmmee ñu ñu gaare bari ñi mu durwaate ne Souleymane xanaa da ngeen yalwaani woon waaye shérif bokk ci de yéen yelwaan rek kaay ma kaay maa leen gën a duunle dal di làmb pos bi génnee jox ñu keroog biñ séddoo lu ne lañ am foofu ci bar ñi lañ dogee fa lañ toog fa lañ séddoo liñ am xanaa koy fen doo fen ci kanamu télévision wala déet bi ci des lii may wax xam nga kañ la am àjjuma ci guddi bii paase benn xale boo xam ne mu ngi ci clip bu fecckat yi du ma tudd turam nag ñu boole kook man mu ñëw seetsi si ma ne ma de dama dégg sa digganteeg Tiwaawan ma ne ko waaw mu ne ma dama am ñaari gënt yu ma jaaxal benn te yépp ci genn guddi gi la mu ne ma dama gënt gis sëriñ saali wu Mbàkke mu ngi ci benn dun bu yaatu nit ñaa ngi ko wër muy ñaan nee na ma ñaan ma ma ba yegg si joxuma loxo nag daf ma nuyu rek xar benn guro jox ma ne ma yéyal moom xale bu jigéen bi mooy wax jox ma ne ma yéyal waaye xarit bi ci des dama koy denc ba ëllëg ndax dama la ciy ñaanal boo ñëwee ma jox la ko nee na mu yéy xarit bi mu ne ko demal ba ëllëg nee na bi muy dem mu gisaat meneen mbooloo nee na mu ne ah kii de xàmmee naa ko moom waa Tiwaawan lan kii Serigne Mansour la xale bee may nettali te xale xale la mu ngi ci clip yii ñuy feccee nee na may rang di rang di rang muy ñaan ba mbooloo mi jeex moom Serigne Mansour nee na mu ne ah man de xanaa sëriñ bi daf maa siixul ñaanal na ñépp man ñaanalu ma te man kenn rek a des ci saal bi boo demee dafa maa siixul nee na mu jékki-jékki rek jaar ci sama tur ne ma diw yegsil nee na ma yegsi mu ne ma tàllalal sa loxo. ma tàllal mu ne ma bàyyil li ngay def te nga dem Canada nga dem jàngi soo ko deful dinga am gàcce gune weng ci réew mi demal nga jàngi nee ma xëy ñaani visa ñu may ma mu ne ma nag ma ñëw di la ci laaj sa xalaat ma ne ko xalaat demal wala nga al ko de ma ne ko xalaat lu ci am am nga visa am nga yoonu Canada awal yoon wa nga dem Canada boo ko deful gàccee gi muy wax suba suba nga jot ko te xam nga nit bëggul gàcce ma ne ko soo ko deful suba suba nga jot ko lii àjjuma la am ajjuma ci guddi bi ma jógee xadaratul juma te min wi jot na boobu ndax ñun dañuy guddee xadar loolu ajjuma la samedi dimanche tey altine nga ñëw toog wax li fi wax xaaji Idrissa Gueye wax li wax kon sëriñ bi demul fen waxuma sax yéen waaye ku ko gëm ni nga ko gëmee woon dem ca këram gële boo gisul Serigne Cheikh gisoo Serigne Habib sukk ca raw doom ba loo fa wax yàlla defal la bi ci des fi may jeexalee si Malick Serigne Mor Diop xanaa ñëpp xam nañ ko man lu garaaw rek maa koy def xam nga lu tax Sénégal loo wax ñu ne du dëgg ndax tàmm fen foog nañ ne ñëppay fen am na ñu rus a fen Serigne xanaa ñëpp xam nañ ko. aji maam ngóor xam na ko kii xam na ko moo ma ko nettali 94 kon li may wax yàgg na mu ne ma dama dem faas Serigne Mor Diop yaakaar naa fii am na ñu ko fi xam bu 94 la ma nettali lii may wax maam ngóor topp ma le xam na mu ne ma dama dem faas sukk ci raw rawdu Cheikh Sidi Ahmad yi di def te sama di def samay tawassulaat nee na bi ma yeggalee ndekete guddee naa fa mu ne ñu ub ñu ñu fekk ubbil nañ ma rawdu bi ma dugg ci biir ñu fàtte ma fa tëj rawdu bi sëriñ moor nee na ma ne fa ba 4 heures matin mu ne daal am na ko ma ne pëkk-pëkk jox ma kaasu meew ma naan nee na ma génn mu ne bi may dugg li ma ci yéem naga puus bi ma dugg sëñ moor mooy nettali mu ne bi may génn nit naga puus bi béjjënam ma génn aw nag nee na fi ma ñëw ci pied benn pie ci zawiya bi toog am genn góoru naar gu ma fa fekk jox ma loxo nuyu ma ne ma foo jógee senegal ci arab ma ne ko waaw mu ne ma Cheikh Sidi Ahmad Tidiane yi boroom rawdu bii moo ma feeñu biig ne ma yow mii dafa am waliyu bu ma doon xeexal mu dagg sama rawxaan fukki at gisatuma ko xaw ma fu mu nekk boroom rawdu bii nag nee na ma yow mii yaa koy delloosi nee ma ne ko man xaw ma dara di mu ne ko sama yoon newu ci kii ma wax wax naa la pare naa ci sëñ moor ne ma ne ko ah man day mënuma waaye am naa sëriñ bu man muy sëriñ kër si dinaa ko ko wax nee na ma jubluwaat ci rawdu bi def te wasul ci sëriñ Babacar si ñaan yàlla pour rawxaanu waa naar boobu la del si nee na ba ca ëllëg saw ca waxtu boobu naar bi ñëwaat jox ma loxo ne ma jërëjëf rawxaan bi ma biñ daggoon fukki at ñëw na biig mu ne ko du man sama sëriñ sëriñ kër si moo la ko indil mu ne naar bi ne ko kaay ma laayee la biir jóob mu ne ko ci lan mu ne ko na fonk seen senegal googu te nanga fonk Tiwaawan mu ne ko lu tax mu ne ko maa ngi lay géñal ci yàlla ne rawxaanu tariqa bi semaine bi juróom-ñaari fan yi mu ne ko am ah, mu ne ko juróom benn fan yépp benn fan lay fanaan faas mu ne ko juróom mbenni fan yi ci des yépp senegal lay fanaan te Tiwaawan lay fanaan ci rawdu Seydi El Hadji Malick sëñ Mor Diop moo ma nettali lii pour dëggalee la li nga doon wax ci Tiwaawan dof rek a koy ñeme lii ku weddi li may wax demal ba ci kër sëñ Mor Diop Parcelles Assainies nga laaj ko dëgg la wala du dëgg kon nag su ko defee si Malick boo toogee fii wax ñu li ñu wax yépp nga jóg dem te delloowuñ la kàddu sant la gërëm lañ duñu ngor duñu gor nit ku baax nga nit ku yaru nga nit ku mën a sagal nit nga xam nga ne man duma tagg kenn ngir lu ko neex ñépp xam nañ ko waaye nag li ma wax Sidi Ahmed démb ma ne ko mën naa waat ci senegal ne maa du maay shérif bu dut laaj xaddiya te sama dara manqué wut benn ma ne ko nag ki la defal loolu ki la defal loolu soo fonkul njabootam doo nit ki ma defal loolu ba ma mën ko mooy seexal Al Hadj Abdoul Aziz sa maam kon nag si fu ma leen fekk man seen matériel la jël leen buum def ci sama baat lu leen neex ngeen def loo ma te du dara du leen ci fekk kon nag si Malick ñépp kontaan nañ fii de gisuma ko ronu tant bi ku bégut ci sa waxtaan wi man maa ngi doon xalaat bi Amadou Wele waxee ba noppi ak ñi wax ñëpp manaan naan waaw man li ma doon xalaat sëñ Habib fu muy jaar waaye bi mu ne wuli dama ne ah fàtte woon naa boobu xool fi nga ko jëlee ba fi nga ko indi ak fi nga ko fi nga mujjee li ma gën a neex ci wax ji mooy Serigne Mansour Sharia la fonkoon waxtu julli moo doon itteem te nit ñi yaakaar nañ ne fi mu ne julli day tardel nit kon si Malick delloo si waat nga ñëpp wane nga ne baasul islam mooy julli wane nga ne lépp lu tariqa bi am mu ci biir julli li ma gën a neex na nga ne sëriñ bi yaram mosul yaram ma mosul su ñàkk sutaate lu dul jumaa mu ngi koy jullee ci biir mbooloo ma yooyu seede dafa baax ñu di ko def parce que nit ñi foog nañ ne sëriñ si jomb nañ jumaa sëriñ si jomb nañ wasifa sëriñ si jomb nañ xaq kon nag fa tabaarakallaahu si Malick wax ji daal bu naree gudd sax ma def suwul adab te bëggeewu ko noonu waaye kontante te lii may wax Haji Maam Ngor Male bu jëloon rajo bi wax ko keneen bu jëlee rajo bi Cheikh Tidiane eh, moomule sa doomu eh, bàjjen boobule su jëloon Cheikh Tidiane Baas wax li ma wax kon nag li ci des rek mooy jox la nga ñaan man dey bu ma jox ma ñaan ñaan nga sa papa daan ñaan te nga nekk fi man maa ngi ci biir mosuma toog ak moom ñaan mosuma toog ak Cheikh Alxaaji Abdul Aziz ñaan masuma toog ak ku sant si ñaan yàlla ak ma ciy dimbale sëñ Ahmad daa dama ko dama koy seeti fii ci kër sëñ Moustapha si Jamil muy wax wax ñaanal ñaanal ma lank mu ne ma shérif rey ci yàlla lañ ko séenu ma ne ko waaye malakul mawti lay yebal ndax dégg nga ko si li ma wax keroog muy ñuy puusante mu naan ma shérif ñaanal du ma ñaan yaay ñaan ma ne ko sëñ Ahmad ñaanal ba yàgg mu ne ma shérif rey ci yàlla lañ ko séenu ma ne ko waaye malakul mawti lay yebal ndax mucc ci ma ne ko kon yaay ñaan mu door a ñaan waaye mayit maa ngi lay ñaan yaay ñaan ndax ñii ñëpp sa tàkkusaani way jur wi di suñu way jur moo ñu fi dajale te la mu daan ñaan secret baag sirru baag lépp a ngi ci yow moomu toog te waxuma ko ngir jeey la sàmmale toog keroog bi ngeen di yegg si itali keroog lay jógee Italie pour dem euh, euh, Espagne pour dem Barcelone waaye la ngeen fa def ak la ngeen fa wax yépp dara umpuñu ci su ko defee nag lala yàlla may foofa benn nit ñi topp la ca mu ngi fii ci senegal danga baax rek waaye boo jëlee rajo bii ñaanalal ñëpp ñaanalal senegal mbon gi fi ne wàññeeku alhamdulilahi rabbil alamin bi nga ko waxee réew moo xam ne ñu ne alaaji maali nga gi fi dëgg la tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluuna amma kañ su ko defee nag ñoo ñu baax nañ waaye liggéeyal nañ yàlla ba jóg fi ñu jéem a liggéey waaye sukkandiku ci seen baax ya rek di def lu ñu neex boo liggéey it yàlla def lu ko neex yàlla kenn du ko ne pourquoi moom moo ñuy wax pourquoi su ko defee nag ngeen baal ñu xaq shérif mii nag shérif turaat ñooy dajee fii at bu jot sànq la am ay gan biñ koy telefone dégluwuma de dégg naa téléphone bi sone mu jël wuyu ñuy ay gan yuy jógee ni war a ñibbi mu déey ma ku seetlu sax gis nga ñuy déyante mu déey ma ne ma shérif dama bëgg a dem yeewi ji gan ya nga wutu ma fi ma ne kopp naa def gan yooya fuñ jëm mu ne Mauritanie ma ne ko xam naa ne sa poche du ko fekkee toogal bu sëñ Habib daaneelee ma sàkku ci moom ñu laajal la sa hadiya maam te man maay njëkk a joxe man maay njëkk a joxe ñu laajal ko hadiya maamam ci ndigalu sëñ Habib ah sëñ Habib te nga baal ma ku jox maam à 5000 man a jox sa tu yonent bi nag lu ëpp 5000 wala déet waaw ah, kañ su ko defee. comme maam as laal na 5000 yow shérif da ngay laal 10000 waaw sëñ Habib sax jox sëñ Habib. di bisu yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. ndax fajarug altine gi ñu denc sëriñ bi. ndax fajarug altine bi ñu denc sëriñ bi. mu bëgg la décorer. mais mu bëgg la décorer. mbub mi ma doon waxtaane. mais mbub mi mu doon waxtaane.